góor gi Yacine booy maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar yéen waa groupe entreprise Rewmi FM. voilà Gorgui Yacine Boye nga nekk secretaire général bu syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste euh, nag ba léegi di traverser euh, crise bu métti métti est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci crise boobu lay nga xamante ni yéen a ngi koy jooy souvent. waa crise bi xaw na yàgg. mën nañ wax ne yàgg na interpellé nañ kii de droit on a fait des sorties par rapport à la presse en tant qu'organisation syndicale def nañ tamit ay sorties syndicales des mouvements syndicaux mais ba léegi on attend on voit que la réaction elle est tardive par rapport à à l'État moo tax ñu interpellé waat parce que période bi ñu toll nous allons vers la fin de l'année nous allons vers une année élective suñu inquiétude ñu en tant que travailleur dañu bëgg eh, état bi comme niñ ko ko yàgg wax ñoom ñu jël les mesures idoines idoines euh, pour sauver entreprise nekk ni la ko euh, eh, ñëpp teg nañ xam nañ ne entreprise bi dafa sooxe depuis des années mais fi mu ne toll na si période boo xam ne doy na waar doy waar boo xam ne inquiété na aussi bien clients yi consommateurs yi travailleurs yi avec euh, tous les Sénégalais. Mhm. jafe-jafe yooyu lan la da ngeen di am problème pour jot seeni salaire euh, liquidité dafa amatul ci post bi exactement lan mooy situation bi ngeen di décrier bu ngeen ñu ko mënee expliquer. waaw jafe-jafe de bari na yàgg nañ ko décrier def nañ sax document de synthèse boo xam ne teg nañ ko ci table autorité yi euh, chef de l'État ministre yi ministre communication ak monsieur Bokar. ak son prédécesseur bi fi nekkoon Yankhoba Diattara rencontre contre ça veut dire que problème bi yàgg na jox nañ kii de droit les euh, toutes les toutes les conclusions ak suñu xalaat en tant que partenaires sociaux te document boobu bi ñu koy defar partenaires yëpp participer nañ aussi bien euh, les consommateurs les autorités ñëpp participer nañ donc il va falloir que nos autorités wala état bi jël les décisions qu'il faut les mesures urgentes pour sauver cette entreprise. parce que parce que fleuron wu économie nationale lustre la woon d'antan dafa war a retrouver place am ci fleuron économique du réew mi kon nag warul am sooxo sooxe surtout que ñun travailleurs yàgg nañ génn yàgg nañ interpellé consommateurs yi xam nañ li ñuy dund usagers yi ak tous les partenaires du groupe xam nañ ne que la situation de l'entreprise est catastrophique fi mu ngi si cëppaandaw bi il faut ñu jël ko avant la fin de l' année et nous allons vers une yëpp da ngay des choses à prendre ñun en tant que travailleur daal l' état c' est la continuité les entreprises ñu ngi dund nañ jël mesure yi nga xam ne ñun wax nañ leen ko ñoom xam nañ ko. et c'est urgent mm-hmm. problème mu salaire yi nga xam ne doon ngeen ko am yéen employés yi est-ce que euh, réglé na waaw wala déet est-ce que jot ngeen ci seeni salaire. waaw problème salaire yi il faut ñu revenir si régler na une partie mu doon inquiétude boo xam ne demoon na ba plongé ba jàpp travailleurs yi mois bi ñu génn rek ak octobre ak septembre travailleurs yi tardivement surtout ñu nekk si réseau postal bi tardivement lañ jot seen salaire très tardivement am na ñoo xam ne sax dañu toog cumuler deux mois jotuñu ko ñu nekk si réseau postale bi mais sant yàlla jot nañ ko xam nga Sénégal moom boo yeexee jot salaire wala nga jot ko ba su weeraax weer war a fekkante si problème day gën a bëri sur le plan économique ñi nekk dans le réseau bancaire bien vrai que ne am na ay retard mais jot nañ salaire yi mais dañuy ñaan autorité yi pour ñu problème yi ñu dund si salaire yi ñu bañ ko dundati doon nañ xam ne c'est la fin de l'année euh, y avait euh, euh, def leen jox ak ak ay xalaat yoo xam ne solution la pour que salaire yi bañ am problème mais entreprise si boppam moo am problème voilà jërëjëf euh, est-ce que aussi euh, le fait que poste di fay bourse sociale yi euh, juralu ko jafe-jafe yi est-ce que si la bokk waaw wala déet. waaw si la bokk si la bokk bourse yi si la bokk comme yeneen produit yeneen yeneen ñi nga xam ne ñu ngi si doon liggéey bourse familiale si su réseau bi la impacté na ko impacté na nos services financiers te lu ñu yàkkamti woon la lu ñu rafetlu woon ni gagné marché boobu di ko joxe. mais dafa dem ba mu am problème boolee suñu problème mu bopp ñu état bi indi une partie paiement aussi si ñun ba pare réseau postal bi manqué woon liquidité am problème de liquidité problème yu bari taxoon état bi arrêté ko mais ñu ngi sant yàlla fan yi doole suwaat nañ ko ñu ngi kay fay bien vrai que ne du lépp la ñuy fay mm. mais ñu ngi siy fay mais bu ñu sañoon bu doon li gënal nit ñi ko jox woon au départ ñu joxaat ñu ko ba pare mettre ñu tous les moyens ba pare du am retard si ni ñuy mettre les fonds qu'il faut pour payer les bourses familiales parce que sur le plan économique loolu dafay suqali entreprise yi ba pare day tax wane ne que ne suñu suñu jublu mooy que ne ñun nous sommes pour la pour les sénégalais nous nous sommes proches des populations voilà nous suñ service service service public bi ñuy bi nga xam ne bokk na si suñuy. suñuy kii ñu ñu waaw. waaw uh, Gorgui Yacine aussi euh, naka nga apprécier uh, liggéey bi nga xam ni seen actuel DG bi mi ngi koy def foofule ca groupe La Poste est-ce que mi ngi si tànku xool naka lay génne poste si jafe-jafe yi wala bi mu ñëwee ba léegi dafa gën a suuxal poste. non moom ngi ngi def li mu man wax dëgg yàlla dafa ñëw période boo xam ne dafa doy waar dafa metti moom mu ngi yu moit bon noonu laa ko mën a apprécier en tant que partenaire social en tant que partenaire en tant que travailleur ñu ngi def li ñu man mais lépp lu mu def rek te amul jàppale autorité gouvernement amul jàppale ministre de tutelle am amul jàppale gouvernement bi ak partenaires yi nga xam ne mën nañ ko am ci bitim réew ba pare situation entreprise bu wane ne euh, entreprise bu neex a jàppale la moom day sonn mais ñu ngi koy ñaanal mission bi mu am pour réussir ak tous les travailleurs nous sommes derrière lui nous on n'a pas de problème avec avec la direction générale l'essentiel c'est que orientation yi nga ko jox yi mu tegu mu doon li nga xam si bëgg-bëggu entreprise bi li jëmale entreprise bi kanam mais am nañ yaakaar que ne bu ko état bi jàppalee ñun doléance yi ñu teg état bi jublu si sauver l'entreprise on n'a pas on n'aura pas de problème avec la direction Mm-hmm. mais ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi surveiller ba léegi parce que ñun syndicaliste lañ. on va pas donner carte blanche à toute une direction mais xam nañ ne il faut ñu jàppale ko accompagner. Mm-hmm. mais dañu gis ni fan yi yéen liggéeykat yi syndicalistes yi foofu ca poste seen yëngu-yëngal euh, taxu ko bari noonu te yéen a ngi jànkonteel ay jafe-jafe lu ko waral. waaw xam nga vie syndicale dafa am ay moment yoo xam ne. ki si biti du ko mën na ko bañ a comprendre mais syndicat si wax dëgg yàlla ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi déposé ñu ngi dugg fu mais am na foo xam bu ñu fa tolloo si entreprise bi c'est les autorités qui ñoo war a jël les mesures yi nga xam ne mooy sauver entreprise ñun foofu lañ toll entreprise foofu la toll ñun bu ñu génnoon chaque jour di def bruit wala di manifester te te jëluñu les mesures qu'il faut pour sauver l'entreprise moo dara mooy mais néanmoins nous restons en veille ñu ngi leen di solliciter ñu ngi leen di informer ñu ngi leen di contre coordonner ñoom di waxtaan ñoom di leen rappeler document de synthèse bi nga xam ne teg nañ ko ci table autorité depuis plus de deux ans boobu rek bu ñu ci sukkandikoo rek sauver entreprise en attendant yeneen xalaat ñëw mais voilà lool la entreprise syndicat yi daal ñu ngi def seen waar. seen euh, peut-être euh, dernière question ban appel ngay lancer njiitu réew mi par rapport situation poste comme ni ñu koy waxee euh, tout le temps il faut sauver la poste ban appel nga koy lancer pour rek ñu daal di sauver post waaw appel bi c'est un syndicaliste en en détresse boo xam ne xamul ëllëgam suba man mi wax ak yow bi man jot sama salaire mois passé dama sonn kon li ma dal en tant que syndicaliste en tant que travailleur dal na pratiquement tous les travailleurs du groupe kon moom en tant que suñu njiit mooy suñu président bi ñëpp lox ak gouvernement am ministre de communication ak euh, des postes ak tous les partenaires sociaux ñëpp économique ak clients yi ñu jublu si sauver l'entreprise fi mu nekk toll na si guddi yoo xam ne mënatuñu xaaraat nous allons vers des une année électorale des mois euh, yoo xam ne sa élection la ñu jëm mais néanmoins l' état c' est la continuité l' état c' est les décisions qu'il faut prendre à temps réel ñu jël ko à temps ne pas ne pas attendre parce que fi mu ne travail loo gën a xaar rek problème yi gën a bëri situation bi gën a L'entreprise a besoin de mesures urgentes, idoines et bénéfiques pour tout le monde. aussi bien si clientèle bi parce que ñu ngi leen di baalu di masawu tamit parce que ñoom ñoom moom entreprise sénégalais yi ñoom moom entreprise lii après travailleur après l'État waaw loolu la ñu ñaan yi il faut dans l'urgence voilà euh, Gorgui Yacine Boye euh, ñu ngi lay remercier ci sa ah, disponibilité maa ngi di fay di leen remercier yéen tam di leen ñaanal bu baax. may fàttali ni gox Gorgui Yacine boo yow yaay secrétaire général bu syndicat libre des travailleurs du groupe euh, de la euh, la poste ñu lay remercier ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj jërëjëf.